donc moo tax ci premier point bi moom la ñuy commencé ci Eumeu Sène di ko encouragé bu baax a baax mhm. kooku gaynde Pikine la mhm. gaynde la Eumeu Sène moom li mu def ci làmb ji bëri na waaye bu defet ñëwee rek dañ koy dañ koy dañ koy jëlee noonu rek xam ne defet moo ñëw di encouragé encore une fois bu baax a baax kii la di euh, tafaatin mhm. waaye tamit Eumeu Sène moom xam nga après combat dafa neex avant ah. combat ak après nee nañ waajal dafa neex mhm. waaye tamit bu yëpp yi passé tamit commentaire yi dafay neex ba tax na mhm. grand boobu Eumeu Sène bi maam Sidi may ñu ci tuuti rek ndax nit ñi boobu ba léegi ñu ngi koy reetaan di ko di ko tuddee koko laay laay loolu tam métti nañu fat tu t'appelles je m'appelle Eumeu Réal. ah. te sama mbër boy bi amul benn problème wax dëgg yàlla boo ko nuyoo dalay fay waaye kan moo ko ñawal lii tamit ah dañuy jekk rek ñawal tamit lii ay ëpp dañ leen la lii lan mi dina neex a ma ne waaw kan moo ñawal kii lii laa man de damaa waay jekk rek te booy bi amul benn problème wax dëgg yàlla boo ko nuyoo dalay waaye kan ko ñawal lii tamit ah dañuy jékki rek ay ëpp la ah man de damaa waar ma bi amul benn problème dëgg yàlla boo ko nuyoo dalay fay waaye kan moo ko ñawal lii tamit ah dañuy jékki rek ñawal lii tamit lii ay ëpp dañ leen di def xamul la lii lan Rokhaya Eumeu robam bi nga ne daan na ginnaaw ba ma amee naqar ba tey <laughs> ba pare daf maa bégal loo bégal na ñu bëri ndax rob bi dañ ci mukaay bee foor xam naa <laughs> parce que nit ñi nee nañ am na ñu bëri ñu ngi koy tooñ nee xëy na peut-être dafa dégg seen bendoom suñu yaay jooju mm-hmm. bu mu waxee ci combat bi passé mm-hmm. euh, Modou Lo ak euh, Modou Lo ak Ama Baldé ndax dafa nekk takk lu vert li koo koy daan xam naa looloo tax mu dem ñaw grand bu xar sànni <laughs> def ko tout vert mm-hmm. waaye en tout cas moo tax tamit daal si koy sànni rek moom ñam na vert de waaw dafa ngémba bi am na lu wert ci ginnaaw. xam naa selbe la déglu rek. xam naa ay tegtal la ay tegtal la ay tegtal la ah lu ma metti ba pare sénégalais tamit non baaxuñu ko xam nga ëmma tamit robe bi ni mu ko solee ak après ni ñu ko monte dañ koo jël xaw ma dañoo dagg loxoy a gàtt dañoo dañoo wàññi dañoo bi yaay sama mbër boole ko boole ko sprite bi non mais non mais baaxuñu sprite beeg gaz biñ ko ah, tegal pion bi metti metti la lido mais wala waxoo leen loolu bëgg ëmb seen rek waaye ëmb seen je pense que moom moo toll. karaam mhm. bu mu sëppoo tamit gën a doy waaram affaire yi rek ba tax na ñëpp dañu koy reetal waaye ëmb moom moom macha allah. Mhm. mais ku baax la xam naa ni moom lii dina ko reeba dee. Mhm. ëmb ku bëri ay reen la ku baax la xam naa ni ba combat bi jeexee bi mu gisee loolu. reen na bay bëgg a dee dëgg yàlla bégal na nit ñi euh, mbër la boo xamante ne waaw macha allah liñ naan Modou Lo neex a faral dimanche waaye ëmmit neex a faral dimanche waaw vraiment bëri na combat góor ah. mais vraiment moom moo daal di joué donc le mérite lui revient. ñoom mhm. moom mbër la macha allah comme ni ñu ko waxee ñu resté toujours. Mhm. dans l'arène ci wàllum ci wàllum bëre bi euh, kii lee di Lac de Guiers lu mu wax Siteu. yaa lii Lac de Guiers daal mu ngay menacé Siteu. nee na bu koy dóor muy daal. Hmm? Lac de Guiers moom moo ko wax mhm. ni waajal boppam moom moom Lac de Guiers bi nga xamante ne moom itamit dañ doon wax naan mbër la bi nga xamante ne day arrière rek mhm. du jël nangoo jël ko waaye mhm. yaakaar naa ne instant yi mi ngi trouvé mi ngi wane ne moom yàgg na ci arène bi te kenn benn xale du ko yàpp mu ngi prévenir na kii di Siteu maam si di si c'est bon ñu déglu euh, message bi nga xamante ne Lac de Guiers na ko am la man maay acteur bi te ci kàttanu yàlla bu duggee ci biir géew incha allah bu neexee yàlla dinaa ko duma dinaa ko daal Siteu ci kàttanu yàlla laa wax de man lu may wax dama wax fi ginnaaw pour. nee na tàgg daay problème coow du jib xam nga wax naa ko ci face à face bi nee naa la faut pas que ñu excité excité euh, tàkkindaay mooy booy supporter cité yi xam nga xale am na nooy waxee ak moom rek bu ñëwee ci làmb du gis dara du lu yàq mais am na nooy communiquer ak moom dina ñëw supporter mbërëm ba làmb ji jeex ñu génn ndax dem ñibbi agression du am dara du am damay déglu nit ñi seen communication lu ñu wax mukk Siteu bu daale la déggee dañ naan tarkindaa yi bu ñu ñëwee léegi léegi la tarkindaa yi def dañu may jàmmoon moo tax booy bu ñu ñëwee dañuy excité wu par force faut pas que ñu dugal loolu ci bopp xale yi booy dañ leen bàyyi ñu ñëw si porté seen mbër xamula ñu ñoom mag ñi nga xam ne ñoom ñooy taxaw di wax loolu ak yéen journaliste yi nga xam ne yéenay taxaw di wax loolu na ngeen xool li ngeen communiqué xale yi encadré xale yi wax ak ñoom pour booy bu ñëw ci làmb yi ñu bañ a yàq parce que stade bi bu ñu ko yàqee suñu biir la ñu yàq ñun ñëpp muy journaliste yi muy mbër yi muy amateur yi muy ki nga xamante ne mooy suñu papa Bira Sène maa ngi koy nuyu en passage très bien Rokhaya lii la ëmm euh, Lac de Guiers ak Siteu daal day waxante keroog ci face to face bi. yi tëkkonte bi metti na Jeanne. Mhm. waaye Lac nañ ko bu baax mi ngi menacé nag Siteu bu ñu fàtte ne moom itamit booy bu am avenir la te mu ngi def ay preuve am. Mhm. mën na bëree am na gàllaaj moom itamit te ñeme na mag ñi. Mhm. waaye mag ñi tamit fu ñu nekkoon ba tey jugi jugeew ñu fa. Oh. ndax Lac dégg nañ ko bu baax a baax. li mu wax ba tax na aussi lancé na benn message ndax nee na ñu ngi naan tarkindaa yi ak curkindaa yi ñu ngi leen di di jay de telle sorte ñooy def naka sudul noonu nañuy bàyyi supporters yi nga xam ne mm-hmm. ñu ngi leen di jay combat bi ñaari mbër yi ñoo ko sekk mais supporters yi dañoo ñëw rek mm-hmm. pour neexal làmb ji nañ leen ciy génnee mm-hmm. dañuy bàyyi yi nga xam te ne ñu ngi koy dugal ci boppu jeunes yi mu nekkoon lu am solo mu nekk lu am solo parce que làmb mooy li ñuy wax chaque jour rek gis nga ñoom mbëri ay xarit lañu la preuve gis ngeen combat Ama ak Modou Lo mu amee woon enjeu ci ay wax ak ci supporter ak ay defante ba mu paree nu mu def. Mhm. ama kottul Modou Lo ci arène bi. Mhm. mu ko tante mu jeex. Mhm. léegi supporter il faut ñu yeewu ci loolu. ñu xam ne lii sport la wax yi ñuy wax neexal. pour jaay bis bi. ñu xamee ko noonu et puis ñu wàññi tension bi surtout ñoom mbër yi parce que gis nañ open press wu Lac de Guiers bi euh, posé nañ ko benn question moom lak après mu énervé staff bi énervé yooyu day yokku tension. voilà yooyu day yokk tension parce que supporters yi mën nañ ñëwee noonu stade ci énervé boobu noonu mm. donc yooyu yëpp c'est à éviter ñu ngi ñaan yàlla làmb ji am si jàmm mm. que le meilleur duma ki ci def am na solo dégg ngeen di DJ wax xanaa rek supporter supporters yi daal di ci bàyyi xel que le meilleur duma ki ci def yàlla baax na yàlla baax na alors on poursuit euh, Rokhaya Ndeye Fatou Tine Titi lu ma waxati titi yëngalati na réew mi de. <laughs> yii titi yëngalati ndax borom la léegi moom itam mi ngi def buzz. Mm-hmm. instant yi nii ci internet bi ñëpp a ngi koy dagg di ko collage. Mm-hmm. ñu ngi wax ci titi titi dafay confirmer affirmer son style musical bi nga xamante ne boobu ba léegi. Mm-hmm. ci loolu lañ ko gën a xamee mooy mbalax pur et mbalax bu neex bi nga xam ne titi bu yooxoo rek yaram yi daw xool yi sedd ñëpp kontaan ba tax na titi nag am na message moom tamit jàllaleeti na ko rek. ñu bëri nag mu ngi jur polémique bu bëri te xamuñu kañ la titi def vidéo boobu le euh, ñu déglu ko dellu que Sénégal fi mu nekk nii. Mhm. man su ma defu mbalax ku koy def. moo ma jaaxal. su ma poñewul mbalax bi delloosi ko fi mu nekkoon teg ko ci palaasam ba ñëpp ne waaw ma doog cee génn def leneen kan moo koy def ñun ñëpp moitié bi yëpp foog nañu ne bu ñu demul def euh, l'international comme di dit defuñu musique man complexé wu ma. baraw war a a bàyyi fi junjun yi xiin yeeg sabar yi maa la ko wax. dafa nekk maa ngi defi leneen déedéet lu ko may kon doo gëm sa bopp. ndax bu fekkee américain bi la moom daf ñu gëmloo li muy def ba pare même bu dee tey léegi wàll si nañu jël Afrique bi sax di jël si suñu yëre yi di solo comme ñu ni ñuy soloo mhm. di ko boole ci seen musique dañoo njëkk a gëm seen bopp ba pare Nigériens yi aussi comme on dañoo njëkk a gëm seen bopp ba pare doo ko mën a jël leneen doole ci nañu dooleel mbalax bi ba pare. Mhm. ba ñu ma def beneen musique de mën naa ko it de kaar macha allah barka yonente bi. <laughs> Euh, ok mu mel ni Ndeye Fatou Titi Ndeye Fatou Tine daal dinay expliquer li nga xamante ne moo di euh, li ko concerné ci wàllu mode. Mhm. moom daal nee na Jeanne mhm. li ko intéressé mooy mbalax pur et bi nga xamante ne moom mu ngi koy def nee na moom kof du complexe boobu mu wax nag jot na mhm. coow lu bëree bëree bëri nit di wax naan Titi ma ngay gaaruwaale wala Titi ma ngay ñi nga xamante ne ñu ngi am trophée ku ci mel ne Viviane récemment mu am trophée yu bari yooyu lee mais ñi koy wax peut dañoo xamul parce que Titi bi ñu koy invité ci émission boobu Kebs Thiam bi ñu koy invité je pense que def na ay deux mois donc nekkul li nga xamante ne nekkul vidéo bu récente nekk na li nga xamante ne xaw na yàgg mais dañu koo dagg dagg collé ko def ko ay collage bu mel ne comme si que Titi dafay wax ci ñi nga xamante ñoom ñoo am trophée mhm. nee na moom style bi muy def du ko changé moom lañ ko xamee mhm. nee na mbalax bi bu ko deful kan moo koy def boobu ba léegi mu ngi koy def muy neex donc foofu lay teg tànkam donc mhm. Titi ba mu waxee loolu nag ñuy rappelé que ne yàgg na pour ñuy wax li nga xamante ne xamuñu ko nekkul vidéo boo xam te ne dafa bees bu nga ko waxee xaw na yàgg te je pense que gaaru gaaruwaalewul woon kenn actuellement ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi am trophée nañu bàyyi di jaxase nag parce que je pense que fans yi ñoom ñooy jaxase genre artistes yi ndax da gis ku wax lu yàgg ñu indiwaat ko collage la ne la yow yaa wax lii diw moo tontu lii donc lu ci bëri dañu koy gis muy jur problème mais nag musique bu ñu koy wax ouverture la comme à chaque fois je pense que booy def musique waroo yam aussi ci benn style kese mhm. ndaxte naam titi xamee nañ ko ci voilà nañ ko ci li nga xamante ne moom mooy mbalax pur et dur bi mais aussi mën nañ ko xaar ci yeneen donc ñeneen ñi bu ñu amee aussi choix pour def beneen style aussi dañu koy respecté mhm. très bien euh, bu ñu jógee foofu ñu daal day waxtaanee ki nga xam ne moo di Dieyla ak borom këram Rokhaya ndax bu divorce amee am na ñoo xam ne ñu ngi dund seen bëggeel ba tey mhm. Jeanne Mama Diallo am na ñoo xam ne ñu ngi dund seen bëggeel te dañuy ñaan rek waaw un an la doon feete mu borom këram ginnaaw temps yi la gis nañ ko ni yàlla may na leen bant mhm. donc kooku di Dieyla suñu jeune chanteuse boobu manager moo ko takk waaw manager man manager yi jaaxal nañ ma <laughs> tegoon na ko bët nag manager yi manager yi laay yi ah man xaama noppi sax wax nga dëgg moo lay moo lay dugal ci point yi muy def ngay développé. bu subaa mu ñëw kaala xaar ma noppi man non genre garaawul mën nga cee bokk rek garaawul ah da ngay daw. yëgale fay ah da ngay daw. yëgale fay bu leen def noonu. sama yoon nekkatu ci. bu leen def noonu kooku moo di Dieyla donc ñu koy féliciter encore une fois bu baax a baax ci nouveau né bi mu am temps yële waaye itam borom këram moom itamit gis nañu moom itamit teg na ay kàddu yu rafet. Euh, jëmale ko ci moom ñu ñaan rek seen sëy bi mu daal di euh, barkeel. yàlla may leen jàmm ak salaam ndaxte gis nañ ne ñu ci bëri ñoom itamit ñu ngi dund seen mbëggeel ñii nag bu mbëggeel yi demu mbëggeel yi ñu ngi dem ñu ngi ñaanal rek ku nekk ci problème mhm. yàlla génne la ci gis nañ ko aussi ci mbay si njaay moom mhm. it tamit waxal na jabaram lu rafet ñun loolu dañ ko bëgg jigéen ñi nañ góorgóorlu say daal ndax ñuy waxal yu baax mhm. nañuy waxal yu baax waaye bëgg nañ loolu jaar dëggantaan dëggantaan alors bu ñu jógee Sénégal jógee Afrique dañuy daal day dem ba États-Unis fekk fenn Nicki Minaj Rokhaya moom mu ne lan waaw Nicki Minaj de son vrai nom Oninka Tanya marage donc voilà ñu xam ko ci Nicki Minaj mhm. suñu rappeuse boobu noonu nga xam ne macha allah moom itamit def na euh, bombe la bombe la sur scène ndax lan peut-être physiquement li nga xamante ne mu ngi koy incarné te nañ ci yu bëri chirurgie yu bëri yi nga xam ne mhm. def na ko def na chirurgie def na visage laal na kanam gi laal na fes yi laal na poitrine bi laal na ndigg li laal na yaram bi mu nekk une vraie bombe sur scène mu nekk li nga xamante ne aussi moom moo ko gën a propulsé moom mooy yokk ay fansam ndax bu fekkente dafa nekk ci scène bi di sol lu ko neex Nicki Minaj gis nañ ko nag mu sexy lool parfois ça dafay ñëw à moitié nu pour ne mhm. donc loolu defoon beusam ci carrière am mais na actuellement mi ngi lancé benn message pour jeune filles yi ñu gën gëm seen bopp parce que nee na moom bu démb ne woon tey du def chirurgie regretté na ko bu baax a baax mhm. donc il faut que ñu euh, fàttali ko jeunes yi surtout mhm. euh, Afrique suñu mbokk africaine yi nga xam ne jël nañu beauté bi rek daal di koy yenu ci kaw siwaat suñu ay suñu xel ndax bu ci mel ni ki mu leen ne mu am na xaalis am na moyen mhm. mais bu demee bay lancer appel mhm. naan jigéen ñi nañu gën a gëm seen bopp parce que mhm. avant bi mu koy def elle ko ci gën a dugal mais aussi ñun ñi nga xamante ne dañuy roy roy dàq lañu dañuy roy ba mujj ëpp ndax gis nañ ko ci suñu célébrité yi ñu ngi bëri ñu ñu ngi def nii di chirurgie esthétique voilà même ñi nga xamante ne kenn xamul dañoo mel ne man xale fu jaay mandarin wala banaan bu am 5 millions rek daal waaye Jeanne 5 millions dajale ko dem yomb na. waaye mhm. suivi bi moom moo jafe. parce que dafa am li nga xamante ne parce que il te faut que ay chaque 5 ans chaque 10 ans war nga dem mhm. xool sa bopp boo màggetee sa chirurgie foo koy def. te mhm. déjà opération bi metti na. dëkk bi tàng na Afrique tàng na bokkul chaleur bi nga xamante ne moom la ñu am fii. amul beneen dëkk dangay ngay seey plastique yee wàcc. <laughs> plastique yi ci boppam mooy wàcc mel na ndox. day weng nañ ci bàyyi xel jigéen ñi bàyyi leen bëgg seen bopp mu ëpp waaw bu fekkee ji góor ñee leen ciy dugal bu fekkee da ngeen a commencé lax ñuy làmb muy peer sport baa ngi fi dañ la fiy bàyyi dem xool ci keneen dina ci dikk. dinaa ci ñëw de. ni ñuy def pour garder seen forme te duñ def suñu ji. indi dafa am solo ci ci ci côté chirurgie parce que booy xool euh, nit ki pas la première célébrité euh, foofu aux États-Unis wala un peu partout dans le monde bi regretter le fait d'avoir pratiqué li nga xamante ne moo di chirurgie esthétique. gis nañ ko ci Kimberly Kardashian moom it daal dinay retirer ay implant am. nañ ko ci rakkam bi nga xamante ne mooy di Kylie aussi moom mi ngi ni que bu démb doon tey dina doon xaar ba euh, am ay doomam ba pare dooray def li nga xamante ni sax moo di chirurgie wala sax mu ñàkk koo euh, bañ a def ndax ñoom euh, commencé nañ ci gis danger yi nga xamante ne mu ngi leen koy jural mu mel ni rek beauté bi ñu ci doon seet waaw rafet na bu ñu ko defee dinañ sol yére mu naes ni ñu bëgg a mel devant le miroir dinañ ko mel mais après li ñu ciy dund ci lu metti moo ëpp ba tax na sénégalais yi mu mel ni à chaque fois bu américain yi jógee di ñaaxaat rek ñoom dafa mel ni du ñu dégg dañuy gumba tëxlu ndax koo ci gis bu tolloon ni suba maar de taal ñoom ñëpp a jekk. tendance la. sénégalais yépp a jekk. waar de ah tendance la. bëgg nga xam ndax yéen góor ñi yéen ko bëgg. non xale yi ñoom ñoo am seen ay folie. bon lépp a ngi ci lépp a ngi ci parce que parfois tamit am na jigéen ñoo xam ni góor ñoo leen koy fayal. Mhm. parfois day am ñoo xam ni góor ñoo leen koy demandé. ñoo mhm. leen koy fayal. Mhm. am na si ñoo xam tamit ñoom ñooy dajale seen xaalis bëgg ko gis seen moroom mu mel nen. Mhm. ñu bëgg mel noonu. maanaam la responsabilité elle est partagée. góor ñi am nañ ci part de responsabilité jigéen ñi am nañ ci part de responsabilité. mais ci am solo mooy. santé d'abord. loo xamante ni boo ko defee. dafay indi ay takatémbe sa santé. non c'est à éviter. loo rafet rafet rafet rafet rafet. après day mujj dem. Mhm. dëgg la te graisse bu bokkul sax graisse biir nga génne ko dugal ko ci taat. non bis bu demee suñu borom dafa sax graisse biir demee. bokkul ak graisse bii. bis bu demee ak taat bokkul graisse. bis bu demee nga jël graisse bi nekk si biir bi. génne ko dugal ko si taat bi foofu dina nëb dina am taab dina am góom. boo toogee ci vol bi ah. war a ñibbi si doo bëgg laa rey nga ñëw sa taat yi weng lan moo ko fi jar. au fi jar. suñu borom dafa def graisse biir bokkul. ak graisse taat graisse lex ak graisse mollet ak lii nu tudd biceps bokkul Diallo Diéry maa ngi lay nuyu yow yow di plateau bi. ak graisse nopp. bokkul bokkul graisse tuñ. bokkul cinq ans dafay commencé am na ni ay infection lay indi yow. ci def nañu xam ne. xam gën a garaaw mooy am na ñoo xam ne docteur yoo xam ne mënuñu ko. Mm-hmm. moo gën a yombale. te melo. wax la benn affaire gis nga médecin yi koy pratiquer. Ah. médecin yi koy def ñu jigéen ñi. ñoom boo leen xoolee ñoom elles sont tellement naturelles. Ah. def ñu benn chose ci seen parce que xam mooy merci. baax na deful promotion. deful ween danger bi.